ana bawol bawol ya jóg leen seen doom jàngoo ah mbokk yi Assane Ndiaye àndandoog bawol production mooy organiser un grand combat de lutte ca arène nationale samedi 11 février 2023 combat askan yëpp doon laaj lamb bi ñëpp doon xaar bébé Diène xale bi dëkk Médina soppe Médina yaakaaru ndakaaru ki indil ndakaaru drapeau chef de l'état mooy jàkkaarloo ak Gakou 2 doomu géejawaay ah dama ni waa géejawaay seen doom jàngoog avenir u géejawaay xaritu Balla Gaye Balla Gaye ko maa yóbbu ca làmba ja koko sës rëkk ci moom Assane Ndiaye Bawol production jël bés bi tuddee ko doomu ndeyam Bamba Fall meeru Médina soppee njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall kon nag le 11 février du yomb ndax lii la amateur yi doon xaar te lii la Bawol production def ah Bawol production sa taxawaay rafet na Assane Ndiaye ne si bés bi Bawol Bawol bu mag bi le king des promoteurs indi na leen cinq combats cinq combats yu saf saf boole si ay naataango ndaw yu tolloo doole am fit Cheikh Super Jamono ak booy Sey 2 kooku drapeau Pape mbay étincelle couture moom lañ cay sargal ah kooku sama doomu ndey la Boy Jaxaaw écurie Thiès ak Baye Mandione Junior yaakaaru caaro yi di ci sargal doomu ndeyam Jibril Fall Leena Couture Boy Ndakaaru borom Grand Dakar ak ñaari tali yaakaaru ñaari tali di fa daje ak xale tëngeej bi ñu naan Ronaldinho xale bi nga xam ni subaree bëree ñëpp jóg ñas jolof jolof bu mag bi yi moom la ñu tuddee boobu drapeau Assane Ndiaye defati na maninam ay affiche yu doy yu neex bés bu nar a rëy malam ñaani numéro 2 doomu mbaar mooy daje ak Eumeu Sène numéro 2 doomu tëngéej combat bu metti baa ngi noonu ñu sargal si Serigne la Diop euh, boroom xalima bi képp kuy amateuru làmb Assane Ndiaye le king des promoteurs woo na la sponsoru bés bi TDR Harmonia King Boisson lamb ji ku ko bañ a xool ko ci Bawol TV amateur yépp la woo Assane Ndiaye cey la bawol bawol cinq combats yu neex waaye bés bi nag lépp ñu ko dipee monsieur le ministre Bamba mais maire de l'émergence de la Médina l'homme de la Médina ay Bamba Fall kenn du moom entre 3000 5000 ak 10 000 cey samedi 11 février arène nationale yo ma la mbëru Fass may la tànk doomu daan sama gox dañ ma sax j'attaque je kon je gagne yo def lu leer du ma pilu faas mën leen foofu dëkk def lu naas dama ni cëpp juutal seeni tendance def ni Pape Diouf damay kas-kas seeni territoire samay terrain de chasse waxal sa rappeur mu fecci bolokaas ci diggu gem bi damay bàkku di njuug samp sama ndënd tëkku ñuy dul yaa ngi may gasal kàmb soo ma gisee di kuul mën na luñ ma tus dama tul maay seen king doon seen njiit puus leen fii doo leen shit ah, ay ca mbër ay ca ay ya tam di ay ca mbër <laughs> ay ca mbër nga ni dama di am doole toll ci di ko def du ma benn ma ay ca mbër ay ca ay ca ay ca mbër waaw waaw damay daan rang muy gaaw nañ ma yónni ya tam ay ca mbër <laughs> ay dama di am doole toll ci di ko def du ma benn ma droit dama bëri dak chien ab bois caravane pass maa ngi ci kaw du ma mbappat dëgg dëgg ñii du ma seen ma jam la gauche droite rek nga 4 avril mu nëma nëbbu mel ni 4 avril liggéey lu wóor teg it sur it feek niggas dul di sur dal ma wej wej tabax sama empire ma bëgg a man nii vampire yo ki lay mbaas ñëw seen yaakaar dinaa fesal lu raw arène nationale samay ni hymne national yaa ma dàkka rab dafay cakataan dama unique ba ci sama melokaan ay ca mbër ay ca ay ca ay ca mbër waaw waaw damay bëre daan rang muy gaaw dañ ma yónni yàgg tam ti ma ay ca mbër <laughs> ay ca mbër et dama di xale am doole toll ci di ko def du ma bett ma ay ca mbër ay ca ay ca ay ca mbër waaw waaw damay bëre daan rang muy gaaw dañ ma yónni yàgg li koy firnde mooy combat bi mu mujj bëre ci digganteem ak Boy Dakar xam nga ne Boy Dakar daan naan ko daan dafa bëri ay xale yoo xamante ne dañu nekkoon ci làmb ji di ko lëmbi moom moo leen fayal est-ce que xam nga xale bi nga demee. bàyyi ba man dafa am fu ma war a dem man maa koy remercier bu baax nag gàpp de ndax champion la toog naa deux ans bëréew ma ma ñëw xam ne moom ma njëkk a may xaalis bu may yóbbul sama yaay ak Assane Ndiaye promoteur maa leen di sant yàlla bu baax a baax daanaka dina ko wax ne ni xam nga ñu yëpp ay gaan lañu ñu sama yaay dafa seetaan laaj si waxatee bu sax mu ne bul wax lii bul wax lii xam nga làmb moo leen boole xam nga ñoo bokk ndax Sénégal sama waay la. mais jour làmb ja nag amul waaye arbitre bi soufflé maa sa kaw waaw di ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam seen buy ci bàkk seen Fallou Mbacké champion la quoi avant tout na damay nuyu sama mbok yi di nga leen waaw na hiwraade hmm. kala ko ɓiɗɗo pullo fof tawoni na hiwraade mi na hiwraade waajuma fof kundara kammadi ko mewni toon kalimate pokodora e kundi madina amma e kula mawde komi jannguno toon pay komin komin komi taalibamaɓe ko ɗon mbenamunolan janndu ena hiwrade ɓe fof amma kala ko ɓiɗɗo polo fouta woni no hiwrade ni ena hiwrade wa sandiniyerudu ba koto jeego mi yii ko watton kon fof mi weltike ak mamoudou six avenir maa koy bégee bu baax sama mbokk la xam nga di nuyu képp koy pol fouta maa lay bégee waaw di nuyu tamit Sénégal waa Sénégal moom aw ma seen fay wallaay azim waaw ma aw seen fay waaw. waaw booy gàkku de. diggante moom noonu la. waaw seetaan naa ko. seetaan naa ko. gis nga taxaw nii sama mag bii Sidi moo tax ma dugg si làmb. Hmm. yaa ngi dégg daf ma newoon dinaa bërëg fourrière te boobu man ak moom mbalit lañ dugg pour ñu seetaan leen. amul yoon paas ay booy ndaw lañu ñu maye kooku ñu dugg mu ne ma yaa kii di ngeen bëri mu jékki-jékki neewaat ma yaa gàpp de même làmb la di ngeen di bëri ji ak ndongoloo si tal na ma ndongoloo hmm. mais ñaari adversaires yi ñëw nañu fourrière ñëw na am na fu ñuy jaar gàpp de dina ñëwaat samedi insha allahu rabbi dina am fu ñuy jaar yaa ngi sóoraale gàpp de ci xeex kan man hmm. man arme de laa jëm commando yi ñoo ma waajal BRFR waaw ñoo ma waajal pare naa fépp kenn du dem geer di wax xam nga escale yi ngay teg affaire yooyu noonu Père Kayra wax na ma lépp amatuma lu may wax. dafa jox kële waaw am am xam nga booy dem geer dañ lay tegal taabul xam nga woo minteer yëpp toog ñu bindal la fii ak fii ngay jaar xam nga te kenn du ko yëg yéen yaa leen koy yëg suñu biir mais incha allah bu taxawee dina xam na nii xam nga plan bu ñu ma jox incha allah dinaa ko exploité. waaw combat bu gaaw ngay bëri ak gàpp deux wala. waaw wala nga yóbbu combat bi à l'usure. <laughs> moom moo doon ne combat daf may yóbbu à mu jékki-jékki naan combat bu gaaw la comprendre nga mais moom ma taxaw dëggal boppam rek waaw na taxaw dëggal boppam rek. bu taxawee dëggal dëggal boppam di di nga xeex. ma jël lu ma moom. jël andil ko waa Medina. gàpp da ngay waa Medina genre dañoo namm ndam. waaw incha allah yàlla def na nag am na ay mbër yu bëri fi nekk. mais yàlla si man la ko jaarale essence yi waa mille pour cent bi waa Medina di leen sant di leen gërëm di nuyu xam nga mbëri fa ñëw yëpp suñu mag juru dóor dóor Serigne Ndiaye xam nga kii Forza Dugu Afira xam nga ñoom Manick ñoom Pakola xam nga ñoom maa leen di déggee bu baax a baax waaw gis naa yëpp xam nga ñoom Jaga Fass ñoom Ibou Afia ñoom sama mbokk Bawol booy lii nag maa leen di nuyu su mel ni ñoom Kéwel Mbaye Guy xam nga maa leen di bëggee bu baax Buur Sine ñoom ñëpp ñëw nañ waaw maa leen di bëggee bu baax waaw di nuyu Mame Goor Samb ak Père Khadim Balla gay nañ ñëw jàppale ma ak ñoom Père Sall parce que xam nga ñoo ma doon député ko waa ak sama papa Mbaye Diouf eh, maa ngi nuyu képp kuy bawol bawol maa lay nuyu xam nga di nuyu tamit xam nga sama gars yi nekk France Père Aba Thiam Père Idi maa lay bëggee bu baax Père Bamba te waa France dañ ma ubbil fan si këlëb foofu ñoom Mbacke ñoo ko géré xam nga ñoom Bukari xam nga ñoom Aline Ndiaye ñoo ko géré waaw. ak waa Suisse. waaw ñëw si gàtt bi nag. Mm-hmm. dina woote ba doyal. ku na ku daal. woote bindal si nga woote. Mm-hmm. dafa mel ne euh, Bébé Diène diggante moom gàkku doon gàkku doon nee na Bébé Diène dafa maa réeré mbir xamuma. Mm-hmm. combat la boo xamante ni ñaar dañu naan cinquante cinquante ñoo tolloo ñaar même taille. ci poids tamit boo booy xool ñaar ñoo xaw a tolloo tuuti ci poids. Bébé Diène mosu bëri combat bu yoon ay combat toujours dañu gis combat yi métti lay bëri parce que combat moom Fourrière bi bi passé Gàkku Dóor tamit ci combat yooyu lay bëri mais ñu ci biir communication Bébé Diène mel lu ñibbi dëkkam parce que mu ngi woo waa dëkkam ci côté ban côté la di woo ci côté musique pour jàpp Gàkku Dóor la fas yéene def wala pour lan waaw xam nga tamit nit xam nga boo bàyyee fu nga dëkk dafa fekk ñu doon sa ñaaw te man sama maam xam nga ñëpp xam nañ ko fii xam nga jàmbaar la quoi wallaay azim te man aw lu dul deret fii Fuuta waaw mais tamit fii laa xam yàlla moo dogal loolu Sénégal laa xam xam na fii laa nekk xam ma mooy gis samay mbokk bool bool xam na sama mbokk séeréer yi maa leen di nuyu xam na di leen sant bu baax a baax di teg nuyoo bi sama papa loxo papa Duudu Ñaan ak Père Girène ak waa Jaxaaw Siin Père Ibu Kama maa leen di bëggee aw ma seen fay waaw ñu si jàpp bu baax ak waa Touba ak Père Diawo. ok kenn ku ne xam na ne 14 mars 2021 wala 2022 nga gëj a bëri. 2020 boobaag léegi. 2020 am na lu fi dox. boobaag léegi am na lu fi dox est-ce manque de repère du am ci diggante yi parce moom tamit yaakaar naa boobu ba mu ngi bëri. waaw gis nga alxuraan boo ko jàngee. Ah. day nekk sa boobu. mais boo ko liyee tuuti rek mun nga lii mais boo ko teewaatee téere bi di jàng lépp dina nekk sa bopp loolu sama papa Kayre moo ma ko jox te sama papa Kayre amul ku ko dàq bëre si làmb champion la boo fi ëpp ay victoire kon xam nga kooku xam na xam na làmb te man dafa dem ba ne mbër arrêté la que dama kontaan si yow pare nga waaw macha allah. awma lu may hésité yàlla nag moo am ndam moom moom ndam man yàlla laa yaakaar yaakaar xam nga yaakaar yàlla ñu may ñaanal te lépp tamit damay ñaan lu gën si man waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla may ndam bu gaaw xeex ba jàkkaarloo dàkk doo xeex ak moom xeex xeex pétard ci kaw moom day wax quinze combat la am bëri dóor mais nit ki mën nga am cinq combat bëri dóor yegg si kaw mm. di daan ay ponk man xeex man loolu lañ may tiital saa pour ma bàyyi xeex nga bëri waaw mais sport la. lu mu góox mooy fi nee naa la arme de guerre dama pare lépp takk samay saak takk samay déguisement lépp. donc bu la bu bi dañ ci préparé ci xeex. la ñu wax. ku nekk ku xam ne nii bëre dóor la wax bu àndee bëre ma duma ko bu bëree ma daan ko. Hmm. waaw ah, ok et a ma xatal loolu léegi dégg ma de ma kii lu mu wax mu ne. Gàqudee Ibrahima Seck. Eh, Ibrahima Seck la bi yow yaa may téye. parce que Alaaji war na sëñ Abdou Karim Mbacke incha rabbi boo taxee ma duma la boo bëree ma daan la maa la ko wax. incha rabbi ak xam nga tamit damay wax tamit lenn xam nga jour signature bi wax naa ko man double nationalité la xam nga nationalité xam nga. comprendre man dama ne yaay garaawul ma dem dóori waaw liggéey doole waaw dem bëre xam nga moo tax waaw mais ay ay kàngam rek ñoo nekk sama ginnaaw double mm-hmm. national de Guinée sénégalais mm-hmm. te jour làmb ji du ma ëppale dara waxoon naa ko lii rek open press war na ko filmer di mm-hmm. tamit di woo waa Géejawaay sama papa Ndiaga maa koy waa Kër waa Arab eh, eh, eh, du Balees. waaw waaw xam nga <laughs> moom dafa neexoon man dama demoon am na benn interview bu mu wax. mais man kooku sama grand la sama papa la fii la doon nekk moo ma yóbbu foofu may fanaande entre entraîné seen tefes boobu ñoom ñoom ñoo ma xamul mais xam naa leen bu baax comprendre na nga te tamit di waa waa géejawaay nañ ko dooleel ko waa ndax gis nañ open pression ndax soobu géejawaay la drapeau géejawaay lay supporté man bëgguma ñëw instant ma koy ëppale lii dara dañoo dëggal boppam. parce que man dama wax fu mu parce que boo ko doon géejaay fii ñëw ba pression bi a di ci kaw bëgg jéem. man lu may gën a bëri may gën a di bëgg. parce que su ma ko daanee dafa am fu ma war a jëm. comprendre nga dafa am fu ma war a jëm. dama bëgg waa Géejawaay nañ ko jàppale bu mu manqué dara di ko ñaanal yàlla wér gu yaram jàmm ak salaam ba bis ba yàlla may ma ndam nag. waaw loolu xool beneen bés boobu. ñu ñëw tey sa open press. gis waa la. ñu gis 1000 pour cent gis ñoom Gris Bordeaux sa ginnaaw ñoom Forza. gis sax mbër boo xam dafa jugee. Pikine ñëw wàll si la. Mm. sa diggante ak Pokola lan la ak 1000 euh, bi. nga war a nekk première sorte loolu lan lay def ci bébé mbooloo mooy doole. dañoo samay mag lañ ñoo ma jiitu si affaire bi ma jox leen cër bu bu mat xam nga te tamit dañ ne xale bu. bu lotoom bu bokk ko xale bu yaroo ma ci tàngal. yooyu sa ginnaaw ndaay. yaa koy yëg. yaa koy yëg. xam nga. xam nga lii yombul nga woote Baye Balla Mboup nit bu ko yombul. xam nga yombul quoi. mais maa leen di sant di leen gërëm. wallaay Azim yàlla ba seen yaakaar tas. esaay lépp lu nekk ni sama carrière man carrière bi laay sàmm. te am naa ay mag sama papa sama papa ndax moom ndax moo doon moo tax ma doon dem Pikine. sama patron la sama papa sama lépp la. xam nga dama doon bëri añ yi lépp moo ko doon seere si ñoom laa doon liggéey moom ak ñoom moom na ñoom njaga xam nga ñu boole maag ama heureusement ay mbokk lañu tamit sama mag ama maa koy ko ñaanal ma demee da ngeen nduróo waaw comprendre nga jàpp na ama a jàpp sama combat sama gàlle fii la doon yeewoo hmm. ñii dem saal duma fayal saal xam nga gars yi ñoo ñëpp ah, ñu ma jege xam nañ quoi mais maa ñaan jàmm ak salaam rek jàmm rek laa ñaan ci réew mi di ñaan tamit jàmm am bu bëri ci réew mi. mais Balla balaa balaa woote ci côté mobilisation lañ gën a bëgg mu insister ci parce que takkusaan googu dafa am daanaan yu ci bëri. booy Dakar a ngi dëkk fii tout pare. Mm-hmm. ñëw bu jógee ña koy topp xam ne kenn mm-hmm. xam na ne beneen affaire la. Mm-hmm. Cheikh Super Jamono pour l'instant rek jënd na dix bolok. waaw booy Seydou noonu. moom nan la fas yéenee waaje parce que gis open press bu dee booy yi ñëw parce que tamit biir yi 3000 la nga ñaax booy pour ñu mën a duy stade parce que làmb tamit ku daan ku nekk am foo dem de. ñun xale yu Médine lañ dëkk déggoo woykat bi wey na ko xale Médine ñu si dugal seen Ba ñëw na fi léegi bind na ay Bamba Fall sànq vingt bloc la ma waaw yaa rek bloc bi ñuy tas. waa Medina ñoo xew la noobul ñoo fi dëkk. maintenant Gueule Tapée Fass Colobane. waaw ñaar xale xam nga maa leen di woo bu baax. waa Rëbës. plateau. fii ay borom noo ay borom doole rek ñoo fi dëkk. Mm-hmm. te xam naa ne bu ñu génnee jàpp jàppale ma barke alaaji Fallou Mbacke maa ngi leen drapeau. te gis nga war na firnde bi ñëw na. waxal a waa fii ci pël mi ngi seetaan fii nga doog a woote. waxal waaw maa nuyu tamit xam nga kër bu ma juddoo bu ma yaroo xam nga waa kër Bilal Fall maa leen di nuyu bu baax a baax fépp kuy bokk famille Bilal Fall maa leen nuyu. waaw suma yaay raaya xam nga suma yaay raaya lu ma xewle fii laa koy defee. Serigne Touba maa lay ñaanal bu baax di nuyu waa Lemboté yëpp maa leen di bëggee comprendre nga Simer maa lay nuyu baax Simer Cheikh Mbacke waaw maa lay bëggee bu baax di nuyu xam nga sama international yi nag sama international yi dama bëgg a waa Medina ñu ñaanal leen ndax dañuy sonn si gox bi nekkul man kese gàcce ngaalaama ku si mel ni Pate Ciss Amath Diédhiou xam nga Pam xam nga Fa Bambara maa leen di bëggee bu baax di nuyu moom su borom Suisse waaw ak ñaa borom Turquie maa lay bëggee bu baax doomu nday Bukari gakude ami ala komi walama ya ndaaro toon ɓay kon kon jande mi sijata mi jalata mi golle ha ha ha ɗum ɗo gaga wallitoɗa am nde o mayi billayi sa kono mi ƴawirta yimɓe ɓen noon ko ɗon mi ƴawirtama billah wallah inchallah a seeti hana a darata ɓay kon kon jamdi a so daraki o yaltay tun ko gio ko kon lambo ye ana yewrade nena du nuyu du nuyu du nuyu tamit sama grand Malick day sonn si man Malick Fall moo ma yóbbu si xalifa bi canaba bi di nuyu Cheikh Salone waa jàppoo maa leen di bëggee Bekaay moo doon jee chaque jour ak Sadio di ma yóbbu entraînement xam nga dafa metti xam nga maa leen di bëggee bu baax a baax waaw ak waa Corniche ñoom fee booy ma foondoo ñoom ndax ma ni ma foondoo ñëpp maa soo mi waɗa e golle an a toon mi liɓa mo waaw ɗa anndi komi ko so jaɓaɗo o yalta ɓe jonnoma baptisement ɓe dugu guejewaay ɓeɗe candum de sede ko tadi fibama ana bawol bawol ya jóg leen seen doom jàngoo ah mbokk yi Assane Ndiaye àndandoog bawol production mooy organiser un grand combat de lutte ca arène nationale samedi 11 février 2023 askan yëpp doon laaj lamb bi ñëpp doon xaar bébé Diène xale bi dëkk Médina soppee Médina yaakaaru ndakaaru ki indil ndakaaru drapeau chef de l'état mooy jàkkaarloo ak Garkou 2 doomu géejawaay ah dama ni waa géejawaay seen doom jàngoog avenir u xaritu Balla Gaye Balla Gaye ko maa lay yóbbu ca làmba ja koko sës rëkk ci moom Assane Ndiaye Bawol production jël bés bi tuddee ko euh, doomu ndeyam Bamba Fall meeru Medina soppe njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall kon nag le 11 février du yomb ndax lii la amateur yi doon xaar te lii la Bawol production def ah Bawol production sa taxawaay rafet na Assane Ndiaye ne si bés bi Bawol Bawol bu mag bi le king des promoteurs indil na leen cinq combats cinq combats yu saf saf boole si ay naataango ndaw yu tolloo doole am fit Cheikh Super Jamono ak Boy Sey kooku drapeau Pape mbay étincelle couture moom lañ cay sargal ah kooku sama doomu ndey la Boy Jaxaw écurie Thiès ak Baye Mandione Junior yaakaaru caaro yi di ci sargal doomu ndeyam Jibril Fall Leena Couture Boy Ndakaaru borom Grand Dakar ak ñaari tali yaakaaru ñaari tali di fa daje ak xale tëngeej bi ñu naan Ronaldinho xale bi nga xam ni subaree bëree ñëpp jóg ñas jolof jolof bu mag bi yi moom la ñu tuddee boobu drapeau Assane Ndiaye defati na maninam ay affiche yu doy waar yu neex bés bu nar a rëy malam ñaani numéro 2 doomu mbaar mooy daje ak Eumeu Sène numéro 2 doomi tëngéej combat bu metti baa ngi noonu ñu sargal si sëriñ Serigne la Diop borom xalima bi képp kuy amateuru lamb Assane Ndiaye le king des promoteurs woo na la sponsoru bés bi TDR Harmonia King Boisson lamb ji ku ko bañ a xool ko ci Bawol TV amateur yépp la woo Assane Ndiaye cey la bawol bawol cinq combats yu neex waaye bés bi nag lépp ñu ko dipee monsieur le ministre Bamba mais maire de l'émergence de la Médina l'homme de la Médina ay Bamba Fall kenn du moom entre 3000 5000 ak 10 mille cey samedi 11 février arène nationale